yow imaam Cheikh mooy sa kilifa waaye fii moom yaa ngi suñ kilifa ñu ngi koy féddale kóllëre googu sa kanam fu ñu mën a nekk ci sa ndigal lay nekk lépp lu ñu mën a dal xanaa yaa koy bàyyi mu lu neex yaa ko bàyyi mu yegg bu dee lu naqari yaa ko bàyyi mu yegg tax ñu ñu ngi delluwaat kóllëre googu sa loxo ñu ngi ni takkewaat na ñun ñëpp delluwaat la loolu te yaakaar naa ñoom Pape Ba ñëpp maanaam Mohamed Abidjan ñoom Jim Sëriñ Daara yaakaar naa yéen xam ngeen loolu kon ñu war sëriñ bi ñu ngi ñu tàlluwaat la suñu loxo ñu ngi ñëpp delluwaat nañ benn say ñu ngi ñëpp waa Zawiya yëpp ñu nekkoon ci naa maalam doon ko liggéeyal ci seen ndigal yéen ñu ko fa tegoon parce que ñun ñëpp si se lañ ñu ngi delluwaat bu ngor delluwaat nañ la ko si sa yal na la yal na yàlla barke la yàlla bàyyi la suñu kanam lu yàgg yàgg maay saa yu ñu la gisee rek bu ñu ñu métti sax fàtte nañ biñ lay bu ñu la gisee rek fàtte ndax sa mbaax ndax sa njaatu ndax rek ni nga mel waaw ñun jooyatuñ maalam parce que xam na ne yaa ngi te itte maanaam yëpp mooy yàlla nga gudd fan yow ba nekk daan maanaam dox ci moom yéen ñëpp yaakaar naa fàttewu leen yéen fàtte la ñu daa rox ci Cheikh Maay tey lañ ci war a gën a takkoon nag dog yi ñu daan doxee yëpp gën ko jàppal di ko ñaanal di ñaanal imam Cheikh ak mboolem xadara bi tey lañ ko war a gën a jàppale ndax lii wan nañu ñoom fan nañu teg kon tam ñun tam war nañ ko gën ñu wan leen tam ñoom tam lan lay représenté hmm. ngërëm ngee ñaan ngi yëpp sëriñ bi ci yow la rek yal na yàlla fay la hmm. yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla may la wér hmm. ñun daal ñu ngi niwaat ci Lamine Dia ak suñu Lamine ñëpp takkaawaat ñu ngi jàpp ñun ñu ne papa asi ne nangam ñun moo ñu boole maalam waaye jaare la ko ci bundu Cheikh Maay mii moo tax kóllëre googu ñu amoon nag maalam kóllëre googu daay man moom la ñuy feddaleeg Cheikh Mahi mii te dañ koy wax toujours duñ ko nëbb imaam Cheikh xam na ñun sax bu ñu demee ci imaam Cheikh yeeslu ko ci ndigali Cheikh Mahi la loolu kóllëre Cheikh Assane la ma bëggoon nag ñun nga xam ne ñoo nekkoon zaawi yëpp bu ko kenn fàtte maalam ni meloon na Cheikh Mahi ñun ñëpp xam nañ mhm. lépp lu ngeen dugg suba ba ngoon na ngeen ci dugg Cheikh Mahi maalam bu ñëwee dakaar ba mu feebaree Seyda xam na kër ma kër Cheikh maa yi la ñu dal amul lu mu ci sonn bu barki dem moom Ndiaye ñëw na seet ko mu ngi niwaat mënoon na ne tey suba rek fekkee na rob bi mënoon na fa waaye giseen ko mu ngi nii loolu kóllëre la nag inna ahda kaana masulan kóllëre yàlla da koy laaj ëllëg Cheikh Maay bu ñu koy wax mooy nitu kóllëre dëgg mooy Cheikh Maay ñun bu ñu àndee ci Imam Assane ba tey ak lu mun a wax ñun bu ñu xoolee Cheikh Maay dañuy gën a sawar dëgg la ndax luñ gis maalam def ko lim ñuy wax moom mii moom Cheikh Mahi am na ñu ma booleel Dakar xam nga lan leen wax dem leen Abdou Ndaw jàngal leen xidma wallahi azim te moom xam ne fi ñu jàngee xidma gi ci maalam aadama ñun lépp lu ñu am rek ci lu baax rek ci maalam lañ ko amee. moo tax lépp lu ngeen wax fii sëriñ bi li ñu am ba def ko fii ci seen yiw la rek ñun amuñ dara li ñu am yëpp amuñ fenn du suñ ndey du suñ bàyyi du mag du kenn ku ñu jàppal li ñu am sëriñ bi yëpp ci yéen la njabootu yaa Fatima du Zahra gi munuñ leen gërëm munuñ leen.